am na ci xasida yoo xam ne nag sëñ bi da koo defar uniquement muy xeet ci xasida yi muy xasida yi xidma yi nga xam ne loolu da ciy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bidaayatul xidma ci la bokk malheureusement dégg naa ku naan bidaayatul xidma mooy xasida yi sëñ Tuubaa njëkk a bind tur yi moo nax xasida yi nañ ci def ndànk firi ko dansé mi ngi ci xam nga bidaayatul xidma mooy tàmbali liggéey bi moom mu jàpp ne xasida googu moom la sëñ bi njëkk bind njëkk bind mais ban liggéey ban liggéey ci la njëkk xam nga sëñ Touba bi mu defee ixtikaaf ci jàkkee Daara Xuddoos gis yonante bi te man ma di ko faral di wax ne mooy signature contrat yoonu géej gi ba yoonu géej gi taxaw yonante bi sallallaahu alayhi da ko waxoon ne ko ñaari condition ñaari obstacle am na te li fekk obstacle yooyu ñu ngi fi. yoonu géej gi du mën a amagul bi ci des yaa ngi tubaa te tubaa yaa ne xar sax allah yàlla aar na ko kon lor du la fekk bi ci des sa nijaay sëñ Mbusoobe mi ngi fi te ku am ijaaba la bu ñaanee suñu borom nangu te am na cofeel ci yow bu natt yi tàmbalee bu ñaanee natt yi arrêté te lépp yàqu diggante boobu sëñ bi dafa téye xalimaam bindu fi weeru koor la 1312 ñu kor yi sëñ bi génn tubaa dem sañ ci Mbàkke Baari wallahi mbokk yi mennum sëñ Touba lañ gis ko sañc ab dëkk di xaar ab natt sëñ Touba rek ko sañ ci ab dëkk di xaar ab natt sëñ Touba ko def waaye mennum sëñ Touba lañ gis ku xaar ay nattu jar sa nijaay ju bokk sa yaay ndey ak baay génn àddina sëñ bi daa sañ ci Mbàkke Baari kori wa digg kori wa sëñ bi sooy wàcc liggéey sëñ ñëw jaal ko delluwaat Mbàkke Bari weeru weeru Tabaski ba jeex atum cent 1312 jeex léegi nag atum jey sa seen dugg si mooy 1895 dugg si ci Muharram ja ci Muharram jooju nag la sëñ Tuubaa jëlaat xalimaam liggéey liggéey bi njëkk ginnaaw bi mu signature bi mu defee mu defee signature contrat bi ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax xasida googu mu njëkk bind ci weeru muharram jay si sin muy bidaayatul xidma mu tàmbale mu tuddee ko tàmbali liggéey bi mooy tàmbali liggéey bi ginnaaw bi mu jaayantee yonent bi sallallahu alayhi ci jàkk ci jàkkay Daaru Xuddoos boo déggee tur bi nag te xamoo lii dangay ngay mooy xasida gi Sëñ Tuubaa njëkk a bind dégg naa ko koy wax xasida yooyu bari na mu muxaddamatul xidma ci la bokk am na xasida gi sëñ haasihi taaya xaadimatul li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom itam ci xasida yooyu la muxaddamatul kubra fi salaat al busra yooyu ci la kon li ëpp ci xeetu ci xasida géej gi moom itam xidma la ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi moo ko wax waccal jamiha ma katabtuhu wala wa anna jamiha ma katabtuhu fi xaybati al bahriya xidmatul li rasulillahi sallallahu alayhi li ma bind ci biir géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam la ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaad du leen am na ci xeetu xasida yi xasida yoo xam ne ni tagg yàlla ak sant yàlla lu mel ne miftaaxul mun a wasuul fi sana alallaahi moom la sëñ bi wax ne ko suxtu xasaidu sana wa sukru walhamdulillahi xabaabi sikri màng naa ay xasida tagg yàlla ak sant yàlla ci delloo ko njukkal ak sant yàlla ci alhamdulilah am na xasid yoo xam ni xasiday toroxlu la am na fu sëñ bi wax naan simtul xasaida li wajhika al karimi tadarruan maa sukurin laa yërim man de xenaa peese naa ay xasaid ngir sa jëm yow sun borom sa jëmu ju tedd ji ngir lan lu tax ma màndaxe xasida yooyu tadarruhan di di la toroxlu la yow yàlla ànd ak cant goo xam ni cant gu dul dog la am na xasida yoo xam ni xasiday ñaan la bi xismayha wala bi saqayha ñaan ci ñaari xeetam ñaan dafa am ñaari xeetu ñaan su aalu talab ak su aalu su aalu ibtihaal ñaari xeeti ñaan yëpp Sëñ Tuubaa def na ko ñaan yàlla ngir ñaan ko ak ñaan yàlla ngir toroxlu jaamu ko yàlla xanaa ki nga xam ne nee na sun borom daf may may ba noppi na ma ñaan ma kooku xanaa ñaanam du ñaanu ñaan rek ñaanuk jaamu yàlla la ñaan nag mooy muqul ibaada mooy yurug jaamu yàlla ñaan mooy jaamu yàlla sëñ Tuubaa ak ñaanam ñaan la lil ubudiya ngir feeñal sa ñàkk ngir diyaaleeg sa boroom kon xasidi yooyu am na am na nag xasidi yoo xam ne uniquement li ko tax a jóg uniquement mooy wéetal yàlla loolu xeet la ci xeetu xaside yi loolu sëñ bi wax na ko fa bare bare sintu bi sirru xul huwa allahu ahad xasaaida tawxiidi xindaman jaxat moo tax kuy jàng xasida ba tax ngay bokkaale yàlla wala ngay wax yenn wax yu ëpp yi xamal ne xasida defagul ci yow dara xasida kum def ci yow dara dangay ngay wéetal yàlla wéetal yàlla gu mat sëkk ndax xasida yi wéetal yàlla moo ci nekk sëñ bi wax na ko sintu bi sirru qul huwallahu ahad xasaa ida tawhidi hinda ban jihaat màndaxe naa feese naa ci sirru qul huwallahu ahad ay xasiida yoo xam ne nii maa ngi ko def jamono bi moo nekkee ci ñay digat te mooy ci géej gi yooyu nag xasaayit tawhid yi la yu xóot yow bi nga xam ne da am beneen pas-pas ba bokkut ak pas-pas bi Sëñ Tuubaa yore fu ñu waxee nga naan taw taw tawhid taw tawhid li sëñ Tuubaa def ci tawhiid kenn mësu koo gis te danaa ko leeral argumenté ko sëñ bi nee na lillaahi xat awsaltu xindal musbidi tawhiiduhul muxsiya man lam yahmudaa jamono yi ba nekkee ci géej gi jox naa yàlla foofee tawhiid yoo xam ne gàccal na ñi bañ a jaamu yàlla lillaahi xat wajaxtu xindal musbidi abkaara tawhiidin asal na kabadi jox naa yàlla bi ma nekkee ci géej gi ay jànq tawhid mooy tawhid boo xam ne kenn mësu koo laal ni nga xamee ne jànq mësu am jëkkër kenn mësu koo laal nee na wasaltu tawhid yi la daal bu xóori li musul li sadaqaatul xóori sëñ Tuubaa nee na jox naa tawhid bu sell yàlla jamono yi ma nekkee ci géej gi bi ma joxee yàlla tawhid bu sell nag ci la ma yàlla jox canuk urul ay nii allamtani bi qul huwa allahu ahad yaa mukriman laysa lahu kufuwan ahad allamtani bi qul huwallaahu ahad bi annahu laysa lahu kufuwan ahad ilayya qutta qul huwallaahu ahad yaa muhtiyan laysa lahu kufuwan ahad akramtani bi qul huwallaahu ahad muxjila jumlatal hidaa alhaadi al ahad sëñ Tuubaa nee na bi ma nekkee ci géej gi sax nasaraan yi ak noon yi li tax ma gañe leen maa ngi leen gañe leen ci secret qul huwallaahu ahad nafayta hani nasaara ya ahad fan hasamu bi qul huwallaahu ahad sëñ Tuubaa nee na iblis sax ci secret qul huwallaahu ahad laa ko rende ci géej gi sabaxtu xulufan salasu yawmal ahad li wàcci man laysa lahu kufuwan ahad sabaxtuhum bi xuluf wala ahad fii xanjari tawhidi abdan lil ahad ufin li xawlin salasu wala ahad xaataltuhum bi xuluf wala ahad sëñ Tuubaa nee na ba nekkee ci géej gi ba may xeex ak tubaab bi ci xuluf wala ahad laa xeex ñoom moo tax sëñ Tuubaa li am ci xuluf wala ahad kenn amu kon sëñ bi xaside tawhid yi mu def ci biir géej gi dama koy gàttal ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi te sëñ bi moo ko waxal boppam sintu lahu xasaaida tawhidi hinda dawil kafuuri wal juhudi jamono yi ma nekkee ci ñuy wedd yàlla tey diingat man na xel naa suñu borom ay xasida tawhid xasida yoo xam ne l'université de Dieu rek moo ko tax a jóg l'université de Dieu lu yéeme la suñ mbokk élèves yi as sayu bi sa yuskaru ñii def ñii def filo dañ leen bindal naan je existe ou pas je existe upa ñu di ci def dissertation man léeg-léegi am élèves yi ma koy laaj mais ay jeu de mots la dañ ñuy nax nga dégg ñu naan ah, ñoom dañoo wax ne yàlla amul dañoo wax ne yàlla amul En réalité, Dieu n'existe pas. En réalité, Dieu n'existe Mais Dieu est. baatub existence dafa jomb ci yàlla existence boo gis non existence moo ko jiitu te ginnaaw existence am non existence dana ci topp te loolu dafa jomb ci yàlla Dieu n'existe mais Dieu est loolu mooy dëgg-dëgg tawhid wa huwa xadimun maa lahu bidaaya wa soo baqaayin maa lahu nihaaya ci tasawur si xaar yàlla moo jiitu te amul tàmbali mooy mujj te amul yamuwaay bu fekkoon ne ku existé la kon non existence dana jiitu existence tam bi te ginnaaw existence tam bi non existence dana ci topp kon sëñ Tubaa nee na sëñ Tubaa ñetti xeetu tawhid la def ci xaside yi ba ci njëkk mooy xaqiiqatu tawhid dëgg-dëgg li nu cité da jër loolu da samay wax sëñ Tubaa ko wax nee na lillaahi xuttu xablu xindal musrikiina xaqiiqata tawhid yi jox naa yàlla ci njëkk ba ma nekkee ci ñay bokkaale jox naa ko dëgg dëggi tawhid ku àgg ci xaqiqatu tawhid lan mooy sa mbir dangay ngay boole tawhidu mbooleem gaa yu baax yépp ak tawhidu mbooleem góor yàlla yépp ak tawhidu mbooleem yant yi loolu mooy xaqiqatu tawhid sëñ bi lu mu wax lillahi xad awsaltu tawhida jamiha xibaadihi alxurri wa innahu samih lillahi xad wajaxtu tawxida rusuli xaalihim aska salamay may yox juli kon loolu mooy xaqiqatu tawxiid yi mu def li ñuy wax arfaxu tawxiid yi loolu it sëñ baa ko waxal boppam te mooy jànqi tawxiid yi sëñ Tuubaa doon yi ma yi ma doon tudd léegi ca bayit yi ma ma doon wax léegi lillaahi xuttu arfaxa tawxiidi raafiha xidmatin ilal waxiidi lillaahi xuttu arfaxa tawxiidi hinda zawi tasliisi wal juhudi loolu nag mooy jànqi taw yi di nga xam ne sëñ bi moo ko fent diggam ak boroom la kenn xamu ci dara sintu lahu abkaara tawhidin nafat li xayri hidaa wa kulliya safat abkaara tawhidiya hindal musbidi nafay na kulla musrikin lam yahbudi gis nga sëñ bi dafa sax ci xaqiqatu tawhid teewlu yàlla gi ak màggal gi ak fuglu yàlla gi ak jàkkaarloog suñu boroom loola jur ci moom xaal jur ci moom maqaama jur ci moom bànneex ba tax mu fent ay tawhid yoo xam ne ay janq lañ loolu mooy arfaxa tawhid ku àgg fii nag lan mooy sa mbir ku àgg ci arfaxu tawhid luy sa mbir ku fa àgg rek sa mbir mooy lii mooy lii ah taytani nafha bi xayri durri kulliyati jaxal sa xayri birri jox nga ma njariñ lu ànd ak lor sama lépp def ko muy baax ila yaa xaadal xayra fi kulliyati aadin li xaqadin ma wa maxaali wa niyati sama lépp man sëñ Tuubaa sama kullu ak sama kullitu lépp def nga ci bonóor ku agsi ci arfo tawhid sun borom da lay jox loo xam ne fàddu na góor yàlla yi jiitu woon fàddu na xutb ak xawsu yi jiitu woon moo tax sëñ bi ne yan xaadul yi min al xadimil baax yi maa xaaba xan akaabir su baax yi yan xaadul yi maa xadra aman nu jabaa minal munaa mi man yurinil xajabaa mi man yurinil xajabaa fii maqaami arfahi tawhidi mu def beneen tawhid nag te loolu mooy afdalu tawhid loola sëñ bi def na ko ci biir loolu beneen mbir la kon sëñ bi defar na ay xasida yi tawhid xeet la ci xeetu xasida yi sëñ bi wax na ko tara xasaidi tawhidan li malikina sawaahid al xaqi man xaatan li man baaxoo am na xasida yoo xam ne tamit tagg yonent bi rek moo ko tax a jóg lu mel ne diwaanu saxaaratul muridina kon daa mel ne waxtu wi mu ngi jege si kon danañ tëb lu bare bare am na xasida yoo xam ne salawaat rek la fatul xafaar ak jaalibatoog yëpp la ko tax a jóg mooy jul ci yont bi am na xasiday tuub tawbatu nusoo yi mu tënkee yu bari la ak wasilatu rubo yëpp xasiday tuub la am na xasida yoo xam ne istixfaar moo ko tax a jóg taxmiis astaxfirullaa ak yeneen ak xasida yoo xam ne nii munaajaat la kon foofu doy naa yom ci wàll googu léegi nag mu amaat beneen xeetu xee xaaj ci xasida yi mooy sëñ bi li mu fekkoon gaa yu baax yi wesaroon ko mu ñëw way ko loolu lu bari la téere yi nga xam ne yi jàngale diine yëpp sëñ bi daa fekkoon ay gaa yu baax wesar ko mu ñëw way ko sëñ bi nee na tawaalifa saadaati ujaddidu naasihan li wàcce la si ahlaa midaadi umar xam yi taalifu sama sàng yu baax yi ma jiitu woon damay ñëw weesal weesal ko ngir jëm yàlla mi nga xam ne moo kawee sama daa ak sama xalima yooyu am na ci yoo xam ne nii ay ñaan gaa yu baax yi defoon ko mu bari ay ngeen lool sëñ bi ñëw woyaat ko lu mel ni sindi di lu mel ni tuufa yooyu day dugg ci xaaj xaaj boobu ndax lu ci ne sëñ bi fekkoon na ko fi waaye sëñ bi daa ñëw nag mu nekkoon wesar sëñ bi ñëw way ko gàttaayu waxtu moo tax du ma dugg ci détail bi am na yoo xam ne sëñ bi da leen dajale xam nga yii sëñ bi daa fekk gaa yu baax yi way ko mu wesar ko am na yoo xam ne sëñ bi nag da dajale loolu ay ñaan la yu jóge ci alxuraan ak ñaan yoo xam dafa jóge ci yant bi ak ñaan yu jóge ci gaa yu baax yi sëñ bi dajale ko gis nga Majmahun ni la ca nekk yëpp sëñ bi da dajale du dara lu ciy wax sëñ bi amul waaye sëñ bi da dajale ci téere yu bari sëñ bi ne wa kullu ma fii sayhun man xuulun xan siqaatin laa daxin fii lépp lu nekk ci Majmahun Nurayni lu wér la lu ma tuqalee ci ñu wér xasiida yooyu yi nga xam ne sëñ bi da dajale mën nañ ci indi lu mel ne xisnul abraar amu ci dara loo ci sëñ bi indi ñaanu gaa yu baax la ak alxuraan ak xadis sëñ bi dajale ko ci gis nga ñaan nga ci njëkk mooy allahuma bi talaxluyi baxaayi xuj bi xarsika boo demee ci xayaatul xayawaan ak damaril kubra téere la bu garaaw da nga ko fekk sëñ bi di wax ne ku koy jàng borom téere boobu xayaatul xayawaan ne kuy jàng ñaan googu suba ngoon sa noon du mën ci yow dara safitu amaan bi ñuy jàng almun jeetu li xaariha min su il xaatimati ubala asmaan moom itam ci yooyu sëñ bi dajale la bokk amul ci dara loo xam ne ni euh, banaatu fikru sayxi la mawaahibu rahmaan duhaaul kabir fawsul mutiih moom itam noonu la duru samin yooyu yëpp sëñ bi defu ci dara lu mu fi fekkoon la sëñ bi dajale ko am na beneen xeet ci xasida yi nag te mooy li ëpp solo ci xasida yi mooy banaatu fikri sayxi nga xam ne yooyu sëñ bi moo ko fental boppam yoonu kenn newu ca daray kenn newu ca yooyu nag mooy yi ëpp ci xasida yi lu mel ne silsilatul li mel ne xasida yi ñu miin yëpp rek ci yooyu la bokk ba tey am na xeet boo xam ne ci xeetu xasida lay muy xeet boo xam ne nit moo ko tàmbali jox ko sëñ bi sëñ bi àggale ko yooyu it am na ci xasida yi boo demee ci minul baaxal xadim da fekk muy wax ne xoqal bu kaaw maam ma jaxate kala moo defar bayit bu njëkk bi wala baat bu njëkk bi yónnee ko sëñ bi sëñ bi àggale xaside gi am na xaside goo xam ne maam ma kala da koo tàmbali woon waxaftu bi baabin lam yakku xattu tajaa waxoo fa salilan xaasidan xayra murtajaa maam ma jaxate da koo tàmbali munta àggale xaside gi mu jox sëñ Tuubaa sëñ bi àggale xaside gi sëñ bi loolu ci fukki bayit ak bayit bu njëkk woon muy fukki bayit ak benn sëñ bi ba ko maam ma jaxatee joxe waxaftu bi baabin lam yakku xattu murtajaa waxoo fa salin xayri murtajaa da ko àggale walam altafit min baxdi ityaani baabihi ila xayrihi min xawfi darain aw rajaa moom la sëñ bi teg yokkaat ci yeneen fukki bayit am na ci xasit yoo xam ne sëñ bi da koo def ngir tontu xaaloolu yer kan daa am wax yu ñu doon wax sëñ bi sëñ bi def ko ngir tontu xaaloo safihun moom itam ñu doon wax sëñ bi daa defee sëñ bi da ci tontu kon bokkut nag yi nga xam ne ay taxmis la taxmis muy taxmis bi nga xam ne mooy astaxfirullah bii maa ngi dégg ñu bari di ko waxtaane waaye xamuñu ko dara dara dara dara ndax am na si loo xam ne mooy yuqu ga ku ko xamagul xamagoo xas yi dégg comme raaya koo dégg mu ci waxtaanee te xamul ndax sëñ bi tudd kaxabu ak xasaan ak busayru xamagul xasida gi dafa gàtt moo tax am na yu sëñ bi def tadmim am na yu sëñ bi def tastiir am na yu sëñ bi def tafsis yëpp ay xel na ci xasida yi gàttaayu waxtu yi moo tax lu mel ne xasida ak baane suhaada bu bu bi kaxabu defoon sëñ bi def na ko kax bu dafa wax ne baanat suhaada fa xalbil yawma matbuulun mu tayyamun israha lam yu fat makbulu sëñ bi ñoo wax ne baanat saadatu fa xalbin yawma maqbulun mu tayyam israha lam yu makbulun loolu kax bu def sëñ bi nag moom bi muy defar dane baanat saadatu xalbin fihi tansilu bi yum ni man lil si yàq liihi tansilu am na si yoo xam nag ay cax la yu mel ne asiinu muhjamatan ak sëñ bi bi mu defaree xasida bind miim ra shin sëñ Tuubaa da bind muy aw cax mu jax ko mag ñi sëñ bi ba muy firi caxoo nag defar ci ak xasida mooy midaadi wa aqlaami wa jusmaani li muxnin badihin luy soqil asmaani asmaani rabaahi kitaaman jaana minhu makama ataa min rahimin la misal xayr rahmaani sukkuuriya lil daahi fi daari wax doo xalaaman bi ab xaafu aadi wa jusmaani gis naa ñu ko tuddee xasida ak merci di wax ne sëñ bi baata tubaab la ci làkk waaye sëñ bi la mu ca wax ak merci bokkul jàngin la ci jànginu alxuraan te sëñ bi moo ko firil boppam yor naa mbindum sëñ Tuubaa ma kon foofu doy naa yem ci wàll googu ngir gàttaayu waxta gi léegi euh, fi may jeexale rek mooy tudd tudd bu gaaw euh, ci mat moomu xasida yi ndax loolu dafa bokkoon ci tam bi te waxtaanu guma ko mooy continue bi nga xam ne mooy continue xasida xasida yi xasida yi génnul yii yàlla yonent bi alxuraan jullit ñi yàlla ci di ko tudd di ko sant di ko ñaan di tudd turam yu tell ya di toroxlu ci moom di wa wane ak ngëmam yàlla di feeñal ak xubuur ak di sellal yàlla bu dee yonent bi ci tënk bu gàtt tagg yonent bi julli ci moom yeesal sunnaam leeral ko woote jëma ci sunu yont bi jaayanteeg yont bi di ko tagg di tudd ay turam def tawasul ci moom di tudd ay ngëneelam ak ay manaaxim ak ay jaar-jaaram génn loolu ak di feeñal cofeel gi mu am ci yont bi sallallahu alayhi bu dee alxuraan moom dafa am cër bu am solo ci biir mbindum Sëñ Tuubaa di melal alxuraan di mënal ngëneelam di wane ne alxuraan mënut a ñàkk ci dundub jullit bi di woote jëme ci ñu sax ci alxuraan ak jàpp enseignement alxuraan ak tudd relation yi mu am ak alxuraan ak bëgg gi mu bëgg alxuraan ak liggéey gi muy liggéeyal alxuraan ak woote gi muy woote ci alxuraan ak jëfe alxuraan ak feeñal lenn li ko sunu borom may ci biir alxuraan gis nga alxasaid mu xayra biir ayaatul xuraan diwaan la boo xam ne mën na 600 po paas xasir yëpp sëñ bi da ko tënki ayab gis nga Fatiha sëñ bi defaat na ci ak xasida suratul kawsar ayatul kursiyu ataa bilil mamar kal awtaan moom itam euh, saari alxuraan yi la kon foofu doy naa yem ca wàll googu ba ci des ñaanal jullit ñi ak laabiri leen moom itam bokk na ci man moomu xasaayit yi waaye xasaayit yi gis nga boo demee ci euh, man la bu sifaa yi xasida gu doy waar la doctrinu médecine moderne bi sëñ bi jàngal na ko ci moom itam gàttaayu waxtu yi moo tax kon sëñ bi mbindam li mu ëmb dafa bari li ñuy wax al ihjaasu raqmi muy wàllu chiffre moom itam day feeñ ci biir xasida yi kon ngir gàttaayu waxtu yi moo tax ñu tënk ko foofu kon lii mooy mat moomu xasida yi léegi nag fi may daanelee mooy dénk sama bopp di leen dénk ñu farlu ci xasida yi te fexe xam nañ cey jariñoo képp kuy jàng xasida te bëgg caa jariñoo am na comportement boo war a yore am na melowoo boo war a yore war nga koo sellal waroo foo jëm ci waroo parti jëm ci waroo parparloo jëm ci yow mi durus xasaayit bay gént ay mbir walla nga gis am mbir ay mbir bu mu tax nga nga jàpp àgg nga gis nga nit saa yu nekkee ci aw yoon di tukki dana gis ay tableau tableau yoo xam ne indication la boo gisee tableau nag jàpp àgg ba tax nga yem fa saw yoon du àgg bul jàng xasida ba jàpp ne yow yaa féete kaw ñëpp loolu ak waru la gis nga mbokk yi lu baax nit dana ci waru te it bul jàpp ne yow xasida ga ngay jàng moo gën xasida gudul moom ba ñëpp dañoo war a bàyyi seen xasida ga ñuy jàng ñëw ci sa xasida yaay kan xanaa xamoo ne kenn ku ne ak xasidaam comme li nga xamee ne kenn ku ne ak wasilaam lu ak xasida gudd gudd am na waaju ko wattu def ko muy gam tànn teyit nag bul dox dina sa bopp ngir li ngay durus lim bari bul xeeb ku dul durus loolu it ci ak waru la te waru bari na ci jamono ji léeg-léeg nga gis ku sol yërey tubaabam nga di ko xeeb te fekk moo la raw sëñ tubaab moo la fopp ku ñuy wax baay Cheikh Gueye Travaux daf maa nettali ne am na koo xam ne conseiller Senghor la woon xam naa turam xam santam xam santam du murit sax xaadir la da daan gis sëñ tubaa jëxëran sëñ tubaa di wax ak moom mu ñëw di ko nekk sëñ Mbàkke Jaxate bëkk néegu sëñ tubaa nee na sëñ Mbàkke Jaxate nee na njalbin gi dama amoon ay dut moom naan kii daal muy wax ndax wér na ndax li muy karawaatoo sol sol costume mais bis bi ma daanelee daa ci man ne ma sëñ nee na li ma lay wax nii gëmu ko waaye sëñ tubaa jox na ma firnde ju tax li ma lay wax nga gëm ko sëñ na bis sàngam heure sàngam yàgg moom képp yéen a nekkoon moo xoon la aw wax yow nett li wax ja kenn man na sëñ tubaa moo ma nett li wax ji ngir nga gëm li may wax daal di koy nettali ko sëñ tubaa waxoon sëñ Mbàkke Jaxate keroog la ko simil sàpp Baye Cheikh Gueye Trawo bi ma koy nee na sëñ Mbàkke bi mu mujj gisanteeg waa jooju nee na waa ji daa ñëw ci sëñ Mbàkke Jaxate ko man daal damaa jaaxle sëñ tubaa lu ma mos wax teg naa ci sama bët mais yoon wii daal cette fois sii daal daa am lu ma wax daal sa loolu mel ne daal loolu jaaxal na ma sëñ Mbacke Diakhaté ne ko lan la mu ne dafa am délégation bu waroon a jóge fii dem Arabie Saoudite sëñ Touba ne woon na ma ci délégation bi ngay bokk. salaamaaleykum waa soxna yi ñu ni maanaam wax ji xaw naa bari lool bu ngeen mënee wàññi wax ji teewlu ngir yàlla ndax li des ci waxtaan wi bariwul ngir demi sëñ bi mi nga xam ne moom la fi tax a dajale ngeen wàññi coow li nee na mu ne sëñ Mbàkke Jaxate li ma sëñ Tuubaa ma wax teg naa ci sama bët dafa am délégation buy jóge fii ànd ak Senghor war a dem Arabie Saoudite sëñ Tuubaa ne ma yow ci délégation bi ngay bokk te Senghor dem na man bàyyi ma fi sëñ Mbàkke Jaxate ne boobu la gëj a xam ci moom dara woo Baye gi Gueye Travo mi ma ko nettali ne ko gëstul ma ay mbiram bàyyi si gay ay dafa jàng tubaab jaxasoo woon sëñ sëñ soxay ba lool sëñ soxay bi ak mu jëm korite ak tabaski mu moom sol bu jógee ci jàkka ja bis boobu la koy jox bàyyi Cheikh Gueye Trawo bàyyi Cheikh Gueye Trawo di gëstu mbirum kooko di gëstu mbirum kooko ba am information ci ne Senghor bi mu demee Màkka buur ba fa nekkoon te defoon leen invitation xamoon na waa ji daa laajte waa ji ñu ne ko ñëwul ma nga Sénégal buur ba yebal ko avion spécial mu ñëw jël si ko waaye bi mu demee Màkka fa la faatoo kon l'apparence et souvent trompeuse bul yor sa dollu xasiida yor sa baylaat gis ko karawaatu nga di ko xeeb amaana mu ëpp la cër ci yàlla te sëñ Tuubaa nee na ab xaj sax boo jàppee ne yaa ko gën xaj ba moo la gën sëñ bi ku xasiida xasiida ku mu defar doo xeeb kenn koo gis da ko jox cër ngir sàmm àq yàlla ji ci moom kon loolu jar naa bàyyi xel kon mbokk yi ñoo ngi jégg lu baax di dog ngànt wax ji ku ci dégg lu lu ko neex ñu ngi koy sant yàlla ku ci déggee safaan ba ñoo ngi koy jégglu te xam ne doomu aadama moo matul mu matul sunu xam-xam bariwul te sunu làmmiñ leerul kon ñoo ngi dog ngànt ñëpp di jégglu ñépp di ñaan daje bi yàlla bu doon suñ mën a mujjug daje yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ tubaa yàlla nañu sëñ tubaa boole ci nitu boppam yàlla nañu sëñ boole ci ñi muy liggéeyloo yàlla nañu sañ tubaa boole ci ñi nga xamee ne ci ñoom lay tàbbal mbóotam ay ak sekkereem ak leeram yàlla nañu sëñ tubaa boole ci ñi muy summee ko ci ñoom yàlla na sëñ tubaa boole ci ñi nga xam ne dañuy am contact direct ak sëñ tubaa dara du seen diggante sëñ tubaa aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa li saa'iril muslimin wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu